yaay seen sëriñ maam xalifa Babacar Si jël na fi nga na fekk sëriñ Babacar fi tasul ca na ñi nar a baax yaay

إماما شمس سور قد يكون يكون keroog gis de kenn gis li ma gën a yéem nag ci Ceerno Ceerno dafa njabootu Mamadou ba njaboote njabootu Mamadou su fekkoon dafa tudd Mamadou kepp tudd na soxnaam tudd na yayaam tudd na as waaye pour bëgg a wan mbooloo mi ñu leen lépp Mamadou dafa seey sama jëm moo waral mu leen di gànn gànnaaw kenn yal na la yàlla fay ji barke leen tib sala sallam nga tudd kenn koo xam ne nag su ma bàyyi daf doon wax naa ñaar rek la mbir di ñëwee ci ndaje dafay yokk rek wala mu rax waaye madame Guèye ne baaxul dara dafa yokk yàlla na ko yàlla fay yiw ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li gën a yéeme mooy nit ki man dara di ko def ba pare wëlbatiku di diisoo bi muy ñëw def ni ma sama bisu bàyyi bopp balaa jëm waaye dafa am nu ma fa war a teewe ndax damay soxna kilifa ma bëgg a waxtaan ak yow noo xalaat ni noonu laa ko war a sama bisu bàyyi bopp la wax de ba pare daal ne nag waaye nag damay soxna bëgg wax jëfe ndigal a waxtaan yow nan laa ko war a teewe astu yàlla na la yàlla fay jiw madame Guèye na la yàlla fay jiw soxna Fatou jërëjëfati Baye Cheikh daan na wax naa ndigal lu mu diis diis diis da lay bégal waaye du mbugal jërëjëfati jërëjëfati yàlla dogal bi ñu ñëwee fii it ñu ay jàmbaar yu nekk ak yow ànd ak Mamadou Gueye di sa doom di ko jàppale nga xam ni kenn ku nekk ci ñoom matoon na ci sëkk Mamadou Gueye benn képp nag ci Abdou Aziz mais nga ni yàlla dafa dogal mat na la doom ndax man moom képp laa am ci xaj boo xam guddi àjjuma bu nekk mu yónni ma mu yónnee ma ne ma defal biir gii ndax yàlla aji doon laa kon la te tudd ñu la fi ndax sa taxawaay ci da lu delluwaat di sàkku nag ñaan ki doog yàlla na ko nangu waaye ceer na wax ci bi wax na yàlla nan la yàlla fayal jiw directeur général nag dafa waxoon ne xam na li ko ceer na defal xam na li ko ceer na yéene xam na li ko ceer na bëgg bu Thierno nekk bu ko fa woowee mu wis ko ndax xam na ni bari na lu muy wut yaakaar ci jëmmam ji ci jëmmam ji Thierno rek la koy wax. barab bii ñu toog tey wóor na ko ni yokku gi décharé kaw la waaye yokku département bi directeur général nee na Thierno mënu laa waaye directeur nee na na Thierno ñaanal réew moom wóor na ko ni réew ndax ñu jëmm yi toog réew mi nag maam Abdou dafa am lu mu waxoon daf ni boo duggee ci gaal gi ak sa ëmb bul ñaan ëmb bi mucc waaye ñaanal gaal bi mucc directeur général Mamadou Gueye nee na nga ñaanal président Macky Sall yéeneen ci suñu borom àggale ko. Mamadou Gueye dafa am lu mu waxoon dafa taxaw ci mbooloo ni jumtukaay yi ma yor président Macky Sall ma ko jox nanu ñaanal réew mi jàmm waaye ñaan nañu ñaanal président Macky Sall yàlla suñu borom gën ko xéewal ak sutura loolu moo doonoon kàddu yi directeur wasalaamaaleykum wa rahmatulah. ku fi gën a bëgg Sëriñ Babacar fi tasul ca kaw loxo ca kaw ñi nar a baax yaay seen sëriñ maam Xalifa